et donc forcément a aussi euh, commencé ngeen seen campagne depuis le début euh, Thaïlande na ngay évaluer euh, li nga xamante jot ngeen depuis depuis campagne mais aussi surtout représente présenté déjà coalition Jam ak njariñ ban coalition la ak kan moo ko jiite waaw di kontaan ci tontu ci laaj boobu euh coalition diam ak euh mën naa ni ay parti ko donc euh, ak euh, mouvement donc d'ailleurs ce mouvement bi nga xamanteni tête de liste du président euh, Amadou Ba une nouvelle responsabilité donc am euh, parti socialiste am andi jëf donc am tam sama parti mi nga xamne moy mooy Cap Sénégal Naatangué donc ñu ñoo euh, constituer li nga xamne moy coalition diam ak njëriñ donc booba tay nak ba campagne ubbi ba tay ñu nek ci terrain bi. Hmm. donc wacc gën a ak euh, population yi donc gën dugg seen biir gën xam li nga xamne moy seen tawat moy seen jafé jafé hmm. donc mu nek pratiquement lo xamne la ñëpp di dund. donc foo dem dañ lay wax méttitu dëkk bi donc jafé-jafé yi nga xam ne ni ñu ngi koy dund actuellement. Hmm. mu nekk lu métti

xale mën nañ fa jàpp ah mu mel ni am na loo xam ne daal euh, lu bëri manqué na fa waaye te boo demee zone bi nga xam ne mooy Tëngéej département bi nga xam ne fa la ñu investi yëpp mm-hmm. mu ni euh, employé municipaux yi ñoom it ñi ngi jooy boobu ba tey donc seen mm-hmm. grève yàgg na te ay soutien de famille ñoo fa nekk donc ay kilifa ñoo xam ne nii boobu ba tey li ñuy ñaxtu ba tey amagul saafara mm-hmm. donc ay yeneen ak yeneen donc problème inondation yi mais hmm, ni problème insalubrité bi ah ñàkkum xëyum ndaw ñi mu mel ni daal tey jii campagne bi foo dem loolu lañ lay wax ñun nag ñu opéré woon proximité donc jël suñuy tànk ak suñuy moyens yi xam moom lañ am donc dugg ci askan wi di waxtaan ak ñoom. mu nekk loo xam ne daal am nañ ci yaakaar bu baax te askan wi tamit jox nañu bopp macha allah. Euh, lu waral seen euh, ànd ak euh, ngeen coalition jàmm ak parce que bëri na problème yooyu soulevé yoo xamante ne mm-hmm. ki nga xamante ne coalition jàmm ak njariñ muy Amadou mouvement ci gouvernement bi nga ne Sénégal avant élection 2024 mm-hmm. donc lan moo justifié yéen seen ànd coalition jàmm ak waaw ñun moom luñ ko justifié li ko justifié lenn la parce que d'ailleurs sax euh, élection présidentielle yi moom lañ soutenir woon mhm. parce que président Macky Sall bi mu waxee nañu jàppale Amadou Ba donc euh, ñi ñëwoon jàppale Amadou Ba ñun dañ see bokkoon mhm. donc ñun euh, mu taalaloon ñu loxo ñu jàppale ko donc bi mu demee ba nga xam ne nag ni mu demee ni noonu la mujjee demee ñu gis ne jàppale woon nañ ko te ànd bi mën na nekk te am nañ yaakaar si président Amadou Ba ndax am na xam-xam bi amna dal bi amna tay bi. lool moo tax tey jii bi ñu xalaatee ñu ne pourquoi pas ñu mëna def ben coalition bo xamné bu dëgër lay doon ndax fi jëm yombul. té gis nañu un peu partout ay coalition yo xamné ñu ngi ñu ngi constituer wu donc ci lañu xalaat donc créer li nga xamné moy coalition jàmm ak njëriñ ñu suñu parti bokk ci pour dooleel coalition jàppale président Amadou Ba. merci. wala ma nag man. waaw jërëjëf jërëjëf dégg la. dañuy dañuy échanger. <laughs> d'accord jàppale Ba. Mhm. tey fi nga nekkee muy euh, euh, département Tëngéej. Mhm. ëmb li nga xam ne moo jëm Tivaouane Peulh. Mhm. donc je pense que li ngay ñaxtu nii. tey Amadou Ba am na fu mu nekkoon. je pense que ne foofu la gënoon yàlla maanaam. moom il était premier ministre chef du gouvernement. tey ñu dem ba génn foofu ñu ñëw élection législative ku ne élection législative député la. li mu mën mooy dem jëli baatu askan bi ñëw am moom mënul réaliser mais tey est-ce que amul ba amoon na acte boo xam ne fii ngeen nekk noonu muy département de Tëngéej dafa am na fa ay acte ba tax ngeen mun a am confiance ne kii kat du mu commencé woon xëy na bu ñu ko jàppalee si élection législative yi danañu mën a apporter hmm. dëgg la xam nga boo gisee tey euh, Amadou Ba ci coalition am lañu demee donc tey ñun au niveau du Tëngéej day mel ni Amadou Ba lañ fa toogal.

kon ku mel noonu même su fekkee nekkoon na ci gouvernement mais amul woon chance peut-être li mu bëgg tey ji yóbbu Sénégal amul woon chance dëgg pour mën koo yóbbu je pense que li ni mooy occasion bi te fépp foo xam ne dugg nañ fa rek même euh, vision boobu lañ gis donc ñu am yaakaar bu baax ni kon assemblée bi nu bëgg ñi nga xam ne moo mën a jëriñ réew mi tey fii dañ koy commencé donte ne assemblée bu ñu xoolee réew député mooy voter des lois ah hein, contrôler l'action du gouvernement mais tamit lépp luy jafe-jafe dëkk bi ñu mu ngi noonu donc loolu je pense que ni euh, day am solo li ñu bëgg buñ fa yóbbee ñu mën ko taxaw dëgg dëgg waaw dama koy faral di dégg nag si ay candidat yu bëri. Mm-hmm. bon ñaari position am na ñoo xam ne lu leen gën a yitteel mm-hmm. mooy seen askan. Mm-hmm. maanaam lu askan bi di jooy. mais am na ñoo xam ne lu leen gën a mooy. sama leader bi nañ ko waajal. waajal mooy comme carrière politique la. donc am na leneen lu nekk suñu kanam nañ ko dooleel. tey moo xoolee yéen seen taxawaay bi dafa mel ni ñaari position yooyu yëpp waxee nga

tey ñoom ñaar nii lañ def. Mhm. pourquoi ngeen topp amul. <laughs> président Macky Sall non ñun suñu parti dafa soutenir woon mooy Cap Sénégal nawtaange dafa ñëw soutenir Amadou Ba d'ailleurs APR ñoom Macky Sall moo leen joxoon directive boobu ne ne jàppaleen Amadou Ba. donc ci kaw loolu ba mu ne jàppaleen Amadou Ba ñu dañoo gis ne candidat bi taxawoon moment boobu la Amadou Ba la woon profil bi nga xam ne moom la réew mi laajoon Amadou Ba la woon donc ñu loolu doxoon jox suñu maintenant nag ñi nga xam ne ni peut-être APR lañ bokkoon euh, ñëw jàppale Amadou Ba ñu dañoo ñëw fekk si leen si donc mu nekk benn à ce que tey jii ñu gis ne Amadou Ba rek moo ñu mën a génne ci lu nekk nii. donc ñu loolu moo waral ñu ànd Amadou Ba ñun suñu parti lañu demee muy euh, euh, mhm. jàppale Amadou Ba parce que moom lañu gisoon ni moom tey ji moom moo taxawee pour mën a génn réew mi fi mu nekk nii. may jox la. waaw jërëjëf xam naa ni question bi may njëkkee dina jegeeg bi la ñaa posé mais bokkuñu quoi mhm. dañoo xaw a nuancé tuuti ginnaaw jigéen nga nag moom suñu yaay nga dañuy waxtaan rek man ak yow ñu di ko ndànk-ndànk. dëgg la waaw boo xoolee waaw tey damay cool quoi ñu waxtaan man nag moom ñu cool xam nga <laughs> waaw waaw euh, boo xoolee amadu Ba dafa bokkoon Benno Bokk Yaakaar ku ne xam na ni ku ni Benno Bokk Yaakaar ni le président Macky Sall mm-hmm. élection présidentielle jàll amadu Ba ni tekk kenn déggatu ko kenn gisatu ko mu jékki-jékki ñëw nga dégg-dégg rek ñun la nouvelle responsabilité mm-hmm. kon cela veut dire que beru na mais pourquoi pas bi mu beroo ànd ak yeneen euh, yow en tant membre boo xam ne ci biir yaa ngi biir jàmm ak njariñ ñi mm-hmm. ngeen bokki biir jàmm ak njariñ lu tax ngeen jékki-jékki dem intercoalition cela veut dire que beroon ngeen mais instant bi yéen ak Macky Sall yéen a àndaat lu waral loolu. dëgg la xam nga politique moom li ñuy wax souvent il ne faut jamais dire jamais. donc euh, defe naa ni parfois ay réeroo lay am mais du question ni dañuy xaajuloo ba mënuñoo ànd parce que ay idéologie yu xawut a bokk la rek a ànd te bu ñu ba gis ne réew mi fi mu toll nii booloo moonu arrangé ngir liñ bëgg ci réew mi mën ko am ngir mëna jubanti Sénégal mën ko jooyanti yenn tawati je pense que lool non buñu ñu and loolu am solo lay doon d'autant plus que te opposition dafa soxla bolo parce que bolo pour mëna euh, am li ñu bëgg mëna am majorité à ce que ñu mëna a euh, euh, génn Sénégal ci ci ci gab bi mu nekk ni kon Amadou Ba en tant que tête de liste Jàmm ak Njariñ dafa japp ni bu bolo Macky Sall du nekk député wala du am majorité bi mu bëgg. non non non parce que coalition Jàmm ak Njariñ mi ngi demal boppam té mi ngi def liggéey bu am solo. non demal boppam instant bi moom kese de intercoalition la la. la mais du zone yëpp intercoalition mais du zone yëpp donc je pense que loolu non c'est bien à préciser parce que du zone yëpp fépp fi nga xam ne day amone fi 2022 donc am parti yo xam ni yenn zone yo xam day laaj xëy na ñu def intercoalition mais tay amna yenn zone yo xam ne mën sen bop seen coalition Jàmm mi ngi demal boppam donc tak walu mi ngi dem. Sàmm Sa Kàddu mi ngi dem. Euh, pourquoi mu jotoon ñaaw bi nga xamee ni élection présidentielle yi ñi ngi woon ci campagne yi wala bi mu jàllee ndax doon nañ dégg ñenn ñi nga xam ne ñoo fare woon ci Amadou Ba de trop ñu naan Macky Sall jàppale wuñu Macky Sall ñële la jox bopp Macky Sall lu tax taxawul Amadou Ba Macky Sall lu tax génnul. wax ci Amadou Ba tey ji ñu gisaat leen ngeen mel ni bu doon coow loolu waraloon coow loolu. bon loolu peut-être la woon te je pense na. ci bu dee lépp ci politique la lépp Sénégal la parce que tamit lépp lu ñu mën def Sénégal moo ñu tax donc defe naa Sénégal tey jii mu avance moom la ñëpp li ñaan ndax ñëpp fa leen dëkk amuñu feneen kon peut-être bien réro, bu ndaw la woon mais parce que soo gisee takk wàllu tey fu mu mënee je pense que tey Amadou Ba ànd faak Macky je pense que du poser benn problème d'autant plus que nous qui gis ne tey jii euh, gouvernement bi yenn kii yu qui ñu ngi fàq di ànd ak ñoom te ñoom bañoon nañ loolu euh, je pense que la politique euh, day baax moment ñu xool intérêt réew ñu ñëpp ñu ànd si ngir euh, Sénégal mën a avancé. waaw ah, mais mm-hmm. mais seen intérêt bopp mi ngi ci nag parce que mm-hmm. intérêt bopp dëgg-dëgg mm-hmm. mooy li ma la waxoon sànq loolu da nga ko da nga ko tontul pour man. parce que seen intérêt réew mi ngeen loolu pour liggéey réew mi parce que gis na ne réew mi comme ni nga ko waxee léegi réew mi metti na. tey boo gisee gaal bi nga xam ne mi ngi suux uh, Foundiougne da dangay gis ne tey ji ba tey yaakaar yi dañoo tas ba tey réew mi fan ko doon yaakaar ba tey yegg ko fa même ah, si fait mais est-ce que tamit duñu fi nekkoon 12 ans ñu ko yàq yàq boo xamante ne ñii ne en 7 mois 8 mois mënuñu ko bu non non loolu prétexte parce que bo ñëwé ne dama bëgg jël réew mi teg sa projet. Mhm. teg né lii ak lii nii suñu ko défé réew mi génn fi mu nekk je pense que soo ñëwee waroo am euh prétexte comme quoi que ne ñii fi nekkoon ñoñu tardé parce que xamul nga réew mi fi nga ko doon jëlee. Mhm. donc lolu je pense que li am solo mo ñu jublu ci liggéey bi wañi wax di té xamné réew mi avancé la ñëpp bëgg réew mi jub la ñëpp bëgg. Mhm. alors euh yow nga bokk euh, liste départementale bu

Euh, fi ñu jëm moo laaj loolu te ñun ñëpp réew mi dañoo soxal donc bu ñu gisee ni. fii xëy na yéen jàmm ak que toogu leen ngeen ne noonu Dakar day metti nañu retiré est-ce que amul yeneen loolu loolu hmm. yëpp pour bëgg rek parce que je pense que nous ñëpp xam nañ xew ci réew euh, donc kon ni am occasion ñu mën je pense que ni mu fi tegee parce que euh, Sénégal jëm opposition def donc je pense que am une question avant

Euh, comme nous avons dit, nous avons fait erreur. C'est-à-dire que si des bases basé pour dire que les Sénégalais ont fait erreur, et que vous argument que les Sénégalais, juste 8 mois après, pour un gouvernement qui a duré 12 ans, de revenir si nous avons fait quoi Alors, dans mon titre, nous avons fait te mu un peu paradoxal parce que mënuñu comprendre tey jii euh, gouvernement boo xamante ni juste huit mois la fi def wala matagu ko nga gis ne sénégalais ñu ngi regretté ñu ngi réccu parce que dama ne ah yéen yéen a wax sénégalais ngi non effectivement loolu moo am parce que pratiquement fépp fu nu dugg loolu la ñuy wax mm. donc non loolu euh, wax non non madame madame madame madame dañoo def erreur parce que euh, madame pardon madame <laughs> madame oh, pardon madame madame pardon non xaaral madame pardon rek madame mm. pardon li nga wax ni instant bi waxu campagne la ah. nit ñaa ngi réccu nit ñi ngi wax yaa ngi dégg nit ñi de xoolal. mais nit loolu non loolu loolu maanaam pour dañoo jàpp ni yéen boo leen ñëwee peut ñun xam nañ système mu campagne boo leen dem campagne <laughs> da ngeen di jël seen pochette am loo leen ci def boo leen demee am loo leen bëgg a tuuf nit ñi. ndax mm. ñun la ñu ngi ñëw ñaxtu. mi ngi metti non te ku si nekk li nga dund yaa ko xam tey boo ñu nee tey ji kaani bu sew tey ji doom bu góor la te mënut ko gis fenn te xam na ni mooy safal ceeb mais gis ñu naan pomme de terre tey eh, ji kaani bu sew depuis si la ah, yokkoo non depuis si yokkoo donc mu nekk foo xam ne fa la réew mi toll parce que lan foogoon ak li am moo nekkoon man dangaa nekk jigéen ma xaw la yërëm ci plateau bi mais daaw ma doxale nii maman xam na lool allez-y allez-y ah. parce que Euh, je pense que ce dund la donc ci askan wi waxtaan ak ñu wax ni la ni wax deug fa la donc euh, pratiquement fi fu lool la ñuy wax mi metti na mi ay donc mhm. je pense que lool ji euh, justifier que ni tay ji su ni dem day gis bi di mhm. donc am yaakaar bu baax xëy na fan foogoon du foofu mhm. donc euh, euh, nag réew mi ba tey fan ko jëlee woon moo fi nekk dañu bëgg nag à ce que ñu gën a baral liggéey bi ba nga xam ne sénégalais daal dañu gën a gis seen bopp xam nga comme comme ñi fi ñu waxee rek c'est le cas de Amadou Ba c'est un différent quoi mhm. amu euh, yi wala coalition yi boobu tax Amadou Ba Amadou Ba dafay jógee tout récemment am lu ñu yor ñu dénk ko ko mhm. muy doxal réew mi ñu gis lu bëri loo xam ne am na diggante mook njiitam mook président dem nañ ba sax manque de confiance madame moi moo tax c'est un peu c'est un peu différent avec les autres. Mm-hmm. question bu muy dugal foofu mooy bu ñu ñëwee ici c'est un déroulement campagne parce que vous ne accès système ah. mm-hmm. mbër bi nga xam ne day dem di bëri ji kii muy tasanteel xam na ni kii daa mun dóor que c'est fekk si su mm-hmm. à dire que moi vous ñu xoolee actuellement campagne sur le terrain amener quoi koo xam ne mbabat bi yëpp moo ko mais yéen système de campagne nan lay dérouler ak si commencé actuellement fan ngeen focalisé. focaliser ci li nga parce que tamit da ngay aspirer pour dem donc député bi li rôle am moy mu xam askan wi déjà lan mooy jafé je té ci loolu lan taxaw euh lool nak mané ben instant bo xolé erreur la Sénégalais reconnaître que mom def. parce que tamit fekkee da ngaa jëlee benn régime nga toog 6 mois 7 mois ñu am ñoo xam ñu ngi réccu kon a waxaguñ ko de xëy na fañ oh. tegoon fañ tegoon yëf yi moo fa yeggul non sénégalais waxaguñ ko nag bokk si loo xam te ni euh, ay jafe-jafe yu baree bari la fépp fu ñu dem ñu koy wax donc bu man Amadou Ba tey jii Euh, jàpp nañ moom lañ gis ne tey jii euh, bu ñu rëccam bu ñu rëccamti koo xam ne dañ koy waxee donc réccu tuuti pour ñëw may ko chance mën nañoo génne ci li ñu nekk donc loolu moo war a tey ji président Amadou Ba je pense que du bokk ñeneen ñi parce que des fois ngay foog leen fekk du foofu donc kaawam loolu la euh, ñi nga xamante ni dañ fi teg tey peut-être bees lañu xamaguñu ñu ne nañ am yaakaar jox leen mais jox nañ leen mais xam nañ te affaire du foofu donc loolu tax ñu def na marche arrière pour ñëw xool Amadou Ba bi nga xamante ni yor na profil bi nga xam ne nii xëy na lépp luy jafe-jafe askan wi te xam na état xam na nguur te tamit euh, quoi qu'on puisse dire c'est un homme charismatique un homme boo xam ne c'est un homme humble modeste am yërmande lool loolu nag ñu gis ko tey jii ñu ne daal euh, lii baax mooy tey jii ñu fexe rek jàppale ko à que tey coalition bi su amee doole dëgg mais tam ñu dem am majorité dinañu permettre lépp loo xam ne nii jafe-jafe ñu mën cee taxaw. Euh, sànq ba léegi waaw. agala seen déroulement campagne. Oui, déroulement campagne ñu comme ko ñëpp di donc rek ni la ko waxee dugg ci askan wi donc lan la c'est lan donc proximité parce que def ay caravane wala ay je pense que ça euh, Ben instant amul importance nit musique non est-ce que est-ce que da ngaa mënul caravane parce que nak attention caravane de la anticipé

koy gën a am solo. waaye nag man ma s'il vous plaît. seulement caravane yi ñoo bokkul caravane yi ñoo bokkul. non non non xam nga xam nga yéen Ba fu mu def gis nga nit ñi ñu koy topp. macha allah nit ñi koy topp meeting la rek non xam nga mobiliser daa yomb. ay nit ñi koy topp affaire yi que li ma doon wax la mooy instant nit ñaa ngi réccu. parce que fan nga foofu léegi xaaral ñëwal ci samay question tuuti. Mm-hmm. non euh, ku ne xam na ni. ku ne xam na ni même mu daal foofu mbay. ah gërëm dafa may jaaxal quoi. Mm-hmm. parce que même entre jëkkër ak jabar tey sa mhm. soxna sax bu ñu la mayee. Mhm. pour nga xam ay jikko mi sew. Mhm. da nga moom ba deux ans. te yow deux ans bëriwul. non non non si en. tey xam nañ naa jikko du gën a yaan. déedéet deux ans bëriwul. <laughs> deux ans bëriwul parce que jigéen dafa ko yàlla bindee. moo tax. tey da nekk koo xam ne mën na ñëw. bon eh. pour ma bañ a xuus foofu sax bañ ma bañ a. déet déet déet ci ku jigéen ay jikko. déet ah, man a tontu ah, de. a a tontu bu doon may dara. mu nekkee rek may def ñaar ñoo xam ne sax. waay mënante wuñu kooku. Mm-hmm. doo leen si huit mois da ngeen dem ba un an wala souvent deux mm-hmm. yi doog a feeñ. léegi nag waxatuma la koo xam ne tey dañ la ñëw jox ab réew ab réew nu mu toll. Mhm. ab réew nu mu mhm. huit mois ñu ne doyal am na. benn daal benn baat benn baat mun naa ko naan mooy métti na. Mhm. mais quant à doyal non il faut ñu am patience xaar. Euh, ñaa ñaa le mot patience nag laay bañ a dégg ñaa xaar daanaka dinaa opposé wu ak yow le mot patience laay bañ a dégg ñaa. la mooy dafa nag rek. yow ñaa ñaa non non non maanaam dëgg moo fi bàyyi quoi moo tax may opposé wu ñëpp. non man xam nga tax may opposé wu ñëpp dëgg moo fi bàyyi. le mot patience laay bañ a dégg ñaa non xaar rek. le mot patience la non non maman daf ni ma ñoom maman daf ni ma ñëpp ngay opposé wul da ngay opposé woo jàmm njariñ di opposé woo Pastef ma ne ko d'accord man ñëpp laay opposé wu. non xaar c'est parce que ni nga bëgg a analyser loolu la non non non. ni mu bëgg a analyser waaw. non non waaye moom c'est-à-dire que c'est-à-dire que gis nga àdduna daru xëy mu neex. lan rek moo neex mooy seet bu bees. moom mooy moom kese moo fi neex. sinon à bu bees mën naa naqari de. non seet bu bees day naqari de. yow mii xëy di dem sa biir. waaw ma jox ko ñaari question. waaw baal maa ngi moom sama question rek. wolof ñaa nee na boo fóotal boo fóotal weer ma. Hmm. def naa ko réew mi ñoom comme fi ñu ko jëlee dafa metti je pense que tey 6 mois war na ci mën taxawal loo xam ne nii lu concret la xam ne dañoo andi jub seen bët jubal jubal. waaw loolu ci wax la yàlla waaw léegi dafa ndànk yow balaa ngay jubal ji. Mm-hmm. balaa ngay jubal mais lu fi nekk li nga xam ne tey dañ ko war a jubal ji mais loolu ça prend du temps. mais nan la ci jubbanti mais pour dañoo entré di jubbanti. non non non non loolu ñuy jubbanti noonu. xam nga loolu am solo loolu ci politiciens yi la yam. mais tey ji askan wi nga xam ne moo sonn. xam parce que amuñ patience boobu léegi léegi léegi par exemple yaa ngi wax kaaw funju nag yeneen xam nga tey ah, bu ñuy joxee parfois argument yi tax ñu ne li ñuy jàpp parfois pour mën a justifier dem yi dañ naan si affaire accord de pêche ci la dañuy wax que ne bradage euh, suuf si si la dañuy wax ne des supposés détournement ci la ainsi de suite ainsi de suite et tey jii euh, suñu problème mooy Euh, ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba dafa bokk ci gouvernement bi nga xamante dañ leen jàpp comme euh, responsable ci yenn fay yu bëri yoo xamante moom la population bi di dund actuellement. et notamment cherté de la vie bi yaa ngi wax sànq kaani mais kaani bi yokk na bu yàgg. <laughs> booba pare <laughs> donc c'est pour dire que. tey jii euh, huit mois après mooy li ma doon wax sànq luy justifier que sénégalais on leur a fait confiance pendant 12 ans. xam que 12 ans différence pour ça c'est un question comme euh, convergence secrétaire exécutif convergence alternative pour la prospérité euh, convergence bi euh, si euh, lan nañu lan moo nekk seen bilan électoral pour maanaam yan élection lañ jot a wala bu dee élection yoo xamante dafa am euh, yeneen parti wala mouvement yo xam moom lañ àndoon en coalition nga defal ñu un peu genève bu euh, mm-hmm. genèse du moins su li nga xam moom convergence alternative euh, jeunesse bi mi ngi commencé ci que ni parti bi am ah, mu parti mouvement la ba mooy MSN donc président Abdoulaye Fall d'ailleurs da doon nek bu bokkoon ci jeune cadre socialiste yi donc mu nekkoon fa après par la suite ci dem euh, ànd ak ki nga xam ne mooy euh, euh, maître El Hadj Diouf donc nekkoon ki yoroon communication am d'ailleurs sax kii ba muy nekk nu mu tudd maître El Hadj Diouf ba muy nekk député moom moo yoroon communication am à ce que tey mu mën a génn plus forest nekk député donc la suite ci la dem dem na benn moment dafa xawoon a reculer tuuti ci politique bi mais mu gis ne euh, il faut que mu dem parce que euh, euh, idéologie bi mu am engagement bi mu am ak bëgg réew mi bëgg réew mi il faut que mayu ko kii woo mayu ko muy muy muy dellu ginnaaw ci wala muy toog di baisser les les les bras donc ci la ñu waa dugg mouvement bi di dem di dem ba benn moment mu ne léegi nañ ko jéem a def parti moo indi Cap Sénégal Natangué di convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué alors élection bi ñu njëkk a participer nag moom mooy élection présidentielle yi nga xam ne moom moo jàll ñu ànd ak président Amadou Ba donc jappelé ko def ci tamit euh, lu lu lu lu am solo donc d'ailleurs sa motax mu jël deuxième donc contribuer nañ ci dal lu baax a baax tamit euh, mu nekk lo xam lu am solo la mo waral ñuy ànd di ba euh, coalition jam ak Njëriñ bi xam tay jii ci loolu lañ ma investir au niveau départemental mu nekk département bu donc je pense que jaar-jaar bi une manière ramassée loolu lay doon. gis naa ni Jàmm ak Njëriñ dañoo daw làqu waaye ginnaaw daw làqu googu. est-ce que yakar ngeen yeen war ngeen manam 5 députés bir assemblée <laughs> d'accord lolu mom sa sa appréciation la ah, euh, parce que man lima japp gis ko euh, té ak président Amadou Ba ak fi dem ñep li safonté ak euh, askan bi ak lim koy wax ak ñun fépp fu ñuy dugg je pense que ni mën no am majorité bu nu gëné gor gor lu mm, affaire yi mom wacc ci terrain bi la xol la nga xam mo jafé jafé Sénégalais donc nga taxaw ci bu baaxa baax donc indi parce que mm. Amadou Ba sa mi ngi promettre ben nouvelle vision dans une semaine et je pense que l'occasion les occasion lay pour gëna mëna wax li nga xamanteni moy ay ay ay ay euh, askan madame madame madame madame madame donc je pense que madame sa que conscience tranquille hmm. xam nga ay dem caravane uh-huh. Amadou Ba bu génn ñu koy topp ñun gis nañ fee Abdoulaye Sylla ñu koy topp gis nañ ñeneen ak ñeneen ña topp mm-hmm. mais yow boo tëddee yow mm-hmm. sa xel xalaatu yow mayu la ni la yow mm-hmm. waxuma la faneen ak faneen mais yéen cinq députés parce que gaa yi bu loon ak sàmm sa kàddu ñi ngeen daw raliew ji làq fa làq fa ñoo leen di diri waale peut-être mm-hmm. dañuy diri parce que xam bokkul de noo xaara xaara tuuti noo xaara noo xaara tuuti noo xaara tuuti noo xaara noo xaara euh, euh, dama ne non non non man mënu leen maa ruubee Amadou Ba xam amoon bariwul sax nag wax fi nekk jomaay da kaa neex noo xaara madame non

leen bu leen jàpp leen jàpp mais mais Sylvie madame Dame Sane Ndiaye noo xaaral noo xaaral pardon xaaral baal maagale ko noo xaaral rek xaar tuuti yow yow boo xoolee pour cent noo xaaral moom bi nga am 34 pour cent yow bëri na ñu la jàppale woon ñoo xam ne ñu bari daw nañ génn ci yow wuti wuti parce que Lo bariwul, xoolal xooxaal non non non maanaam yéen moom madame yéen moom madame yéen moom madame xam naa ni yéen daal xam naa ni madame léegi léegi daal yéen yéen yéen boo leen di campagne fexe leen daal ba Amadou rek nekk dem assemblée parce que yéen leer na ñuy des ñuy des non ñuy des mu ñoom dara quoi mu ñoom dara non ñu mënu ñoom yéen foo leen di jaar ay yeneen yeneen parti non non mënoo am dara madame waa def nekk rek non non boobu noonu au moins euh, xaw naa am doole quoi mhm. par rapport ak tey boo ko méngale mhm. ak kii nga xam ne dafa génnee cinquante quatre pour cent première position mhm. tey ku ko mënam doole kooku rocceeku na ñii daw dam ñoom ñëpp ñii ñëpp ay benn benn la yow ñu dugg seen bopp la ñuy dugg pratiquement ñu leen topp ñii dugg ñii dugg ñuy jóge si yéen kenn ku génn muy PDS moo fa nekkoon génn na

liste euh, Jàmm ak Njariñ waaw comme euh, di kontaan bu baax ci jàkkaarloo askanu Sénégal donc di leen wax ne euh, coalition jàmm ak njariñ mu ne coalition boo xam comme ni mu méngoo rek jàmm ak njariñ defe naa ni lu am solo la. Mm-hmm. et que ni tey jii bëgg nañ tey jii ñu taxawal benn taxawal benn assemblée boo xam ne assemblée bu bu responsable lay nekk mais assemblée boo xam ne day taxaw ci lépp loo xam ne nii euh, jafe-jafe askan wi la mais tam assemblée boo xam ne nii dina mën a contrôler baax saytu lépp loo xam ne gouvernement mi ngi koy mi ngi koy doxalee te loolu mooy rôle am réewam et que ñun ñu ngi si woo ñëpp bépp sénégalais boo xam te ni tey bëgg nga assemblée boobu à nga voter coalition Jàmm ak Njëriñ coalition Jàmm ak Njëriñ nag président Amadou babu moo ci nekk mu nekk vert bi ak blanc bi je pense que vert bi moom couleur jàmm sax te loolu moom def naa ne am na solo bu baax ak euh, garab bi nga xam te ni moo koy euh, moo koy euh, voilà moo ko ëmb loo xam ne nii daal mandarga boo xam ne mën nañ ko cee xàmme Euh, mu nekk daal loo xam ne ñu ngi woo sénégalais yépp à ce que le 17 ñu votel coalition Jàmm ak Njariñ ngir Sénégal bi ñu bëgg ñu mën am euh, Sénégal bu dal Sénégal bu naat mais Sénégal bu am jam am njariñ macha am na euh, da ngeen am dernière question ou pas bon baax na <laughs> maanaam koy laaj rek ndax moom comme moo jiite fële moo nekk département bu mhm. ci commune bi est-ce que ngeen en âme et conscience war ngeen yow li ngay wax euh, dafay neex a tontu parce que ñun foofu lañ dëkk tey defe naa xam nañ li fa xew. dëkk fa taxul nga gagné. ah loolu am na waaye tam dëkk fa defe naa da ngay bien placé pour nga mën a xam ne lan mooy jafe-jafe dëkk ba. xam nga ñun dikkuñu pour wax wax loo xam ne day convaincre askan wi déedéet da ngay liggéey lu askan wi di gis. dëgg la euh, lool noonu euh, ci la ñu jëm ndax ku ne xam ne tey jii département wu Tëngéej li mu manqué bari na. ah nga gis ne problème canal bi déjà problème la mais tam bu ñu demee di leen euh, waxtaan ak ñoom dañuy wax chaque jour euh, comme ñi nga xam ne ñooy employé municipaux yi jafe-jafe gi xam ñu ngi koy dund te loolu nekk loo xam lu metti la ndax ay borom kër leen ñu bëgg loolu am saafara ñu fas yéene tamit loolu ko comme combat mais tam inondation na zone yoo xam ne pratiquement seen kër yi mënatuñ faa génn euh, mu nekk lu doy waar xale yi te ku ne xam na xale ma mënul toog donc yooyu bari nañ ak yeneen ak yeneen waaye tam boo ñëwee fi nga xam ne mooy sama dëkk muy commune Tivaouane Peulh ñàgg dañ lay wax ni insécurité bi bëri na fa lool euh, amul éclairage public donc robinet moom euh, kenn xalaatu ko fa ba ay benn benn ñoo fay am. Mhm. nga gis ne teen yi daal ak euh, pompe yi ñoom ñoo fa gën a bëri doole te loolu wax naa ne xam naa ne loolu war na mën lu mën a ñàkk la parce que boo xoolee zone boobu noonu à 30 kilomètres de Dakar. war na dépassé foofu mu toll ndax village yi nga xam ñoo fa gën a sori sax bu mel ni sama dëkk waalo def naa foo tourner robinet la foo tourner courant la loolu nekk ay jafe-jafe mais tamit tali bi parce que boo xoolee tey Tivaouane Peulh di ko dalee avant nga yegg Namora ba Socabek boo fa sexoon guura day mokk ndax tellement état wu tali yi ni mu mel mu nekk euh, lu doy waar euh, jafe-jafe yu bëri daal loo xam ne ni askan wi daal yóbbante nañu ko parce que ñu am yaakaar ne tey ji bu ñu falee ba ñu dem fa dañ ci mën a taxaw baax a baax a baax ay yu yu garaaw non maanaam ku diggu olof la lay dugalaay soog ñu rek avancé ku diggu weer bi day yomb noonu da ngay gaaw si weer

caporal de. <laughs> dañu fàtte au début ah si commencement bi dañ ko doon wax di ko félicité. Mhm. que di wax euh, vraiment euh, seet bi nu mu neexee. parce que mhm. dem nañ fa euh, vraiment lekk nañ ba suur naan nañ ba mandi. dëgg la ah, ah, mbay accueillir nañu aussi vraiment accueillir nañu. nu mu neexee noonu. Mhm. yàlla na seen. amiin amiin amiin seen diggante neex ba may leen jabar bu barke. ba ñun gars yi ñu am si turandoo. waa loolu koo xam gaaw leen ndax ngeen tudd ndax ngeen di yaakaar. maman kenn mënoon naa bañ a xam ne célibataire lañ kenn mënoon na ko bañ a yëg. mais yow direct la nekk nii maman. direct la nekk nii naan ay célibataire ngeen. waaw ñun suñu ah, ah. mais ni da nga am sutura. <laughs> voilà yow célibataire alors mi ngi doon ñu ngi baax madame euh, Kapa madame Caporal donc suñu jabar di ko wax dalal ak càmm macha allah di ko félicité bu baax di félicité Caporal bu baax baax a baax alors euh, madame Nafissatou Ndiaye ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñuy seetaan. waaw di kontaan di gërëm donc di sant bu baax. ci mhm. teew bi ñu teew fii mais tamit di nuyu samay waajur sama yaay ak sama papa. di mhm. euh, leen gërëm bu baax. macha allah ndax yombul donc euh, lii ku ne xam ne dafa métti mais ñu ngi si encourage di ñu si dooleel. Mm-hmm. di gërëm tam ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi liggéeyandoo ak ñoom waaye tam di gërëm euh, département Rufisque bi yëpp. di gërëm tamit euh, commune Tuampel Niague Niakrop ah Déni Guèye Kër Marème Mbengue zone yooyu yëpp nga xam ne daal macha allah jafe-jafe yi bëri fa lool. donc ñu am yaakaar ci ñun nak ñu fas dal daal porté loolu yëpp yóbbu ko assemblée. Mhm. donc di gërëm président euh, Abdoulaye Fall mi nga xam moma moo ndax lépp luma xam ci politique ci mom la. moo ci nampatal donc yar ci muy euh, président Abdoulaye Fall di ko nuyu bu baax baax borom Cap Sénégal nottange. mais mhm. itam di leen gërëm sa collègue yi nga xamante ne moom laa seqal plateau bi di kontaan ci ñëpp di gërëm. merci beaucoup euh, Nafissatou Ndiaye moo nekkoon nous suñu invité si Bonjour Sénégal alors Niang on se donne rendez-vous demain Inch'Allah.

xëy mbay. lan la dama tàggatoo mu gàtt rek. tey <laughs> dama bëri noonu mu quoi dama mun invité jigéen dama koy xaw a kii quoi xam nga rek. Mm. wallaahi xam nga li mu nekk jigéen la moo tax te mm. plateau bi yënguwul xam nga ñu ne tekk. lu pour bàyyi ko xam nga rek sa argumentation yii mm. dama koy xaw yërëm waaw loolu la jigéen dama koy yërëm. je pense que loolu noonu ay kii dara. ah kon yow waaw <laughs> ah, leen di jaajëfal bu baax a baax. <laughs> <laughs> maa ngi leen di jaajëfal bu baax di leen jox seen wàccuwaay di kontaan ci yow nag vraiment di wax ne sa militant ak sa militant yi ñu topp sa ginnaaw ñu ngi leen di jégglu juste que pour mm-hmm. bëggoon émission bi neex rek la mm-hmm, di jaajëfal buur mi nga àndal mm-hmm. ak képp koo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel di nuyu nag euh, Ndey Aram Kebe ak Ndey Mbaye Kebe ndax ñoom tamit dañuy suivre saa su ne di ñu bàyyi xel euh, di topp tele bi nga xam ne moo lañ nekk muy GTV ñooñu maa ngi leen di nuyu baax ndax ñu gën ci man lañ nag aussi te ñu baax lañ Ndey Aram Kebe maa ngi lay jaajëfal bu baax yow ak sa rak Ndey Mbaye tey fa mi kebe la jël bu subaa